asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 12 août 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu làmb la xëy tey doore ko yëglikaay ba nag moom tey daa mel ni bawal daal la xëy awale parce que nag ka mu seqal waxtaan mooy may ndewaan mi nga xam ne moom mooy entraîneur tafaatin moom nag moo xëy tey ngardaajoo yëglikaay biir sunu làmb di fa dànkaafu ki nga xam ne mooy booy ñaa bu dégol wala bokk booy ñaa bu pikin mbay ndewaan daal nee na ko li am ba des daal yow booy ñang yaag say mbokk jàppale leen ne day amul mel ni mbër moo xam ne am nga fit wala nga osé taxaw naa neeyu njaay da ngay xeex ak Tapha Tine bés boo ko defee wala ku mel yow def ko bu kër la cay fekk moom jàppal ne du neex loolu yëglikaay bi xëy tey ñëw seq ak waxtaan ki nga xam ne nii nii moom moo di mbay ndewaan ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu lamb ba tey bu nu continuer ci yëglikaay boobu nga xam ne sunu lamb moom ki nga xam ne moo di mbay gi ci gëstoob ibakan daal xëy nañu xamal ne mbay gi daal la ko dal maanaam daal wàllum AVC la moo ko jàpp daal ba tee benn loxo ba ak benn tànk ba mel ni ki nag fi mu nekk nii daal loolu mooy ak wér ak li nga xam ne moo ko arrivé ci wàllu wér gi yaramam mbay gi premier tigre de Fass yëglikaay ba moo xëy ñëw tey wax nu lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne nii yëglikaay ba xëy na tey ñëw wax nu ko muy Assane Ndiaye ma jiite Baol production mu mel ni ki nag digganteem ak Mame Balla ak Mbaye Gouy Gui moom bu fekkonte ne ay wax da caa am combat ba taxaw na am taxawul daa mel ni ki nag léegi mbir ya moom leer na nañ Assane Ndiaye daal yëglikaay ba xamal nañu ne léegi moom li am ba des finalisé na mbër ya maanaam daal bukkale na affaire ba maanaam tëj na ko combat ba léegi taxawal na ko ci diggante Mame Balla ak Mbaye Gouy Gui kon li leer ba leer ñoom ñaar moom ci kàttanu yàlla ku ci lekk avance wala boog lekk nañ avance faw ñu bëre ndax nag jël nañu xaalis ba yëglikaay bi moo xëy ñëw tey wax nu ko beneen bawol bawol wala yeneen bawol bawol ngi yoo xam ne nii moom seenub écrit yëglikaay bi xëy na tey ñëwal ñu ci muy écrit bawol jàppal sept victoire sept défaite daal la ñu am loolu mooy li nga xam ne nii moom l'écrit bawol bu ñoom wulli numéro deux ak di def ak Mbaye Diouf leader la boo xam ne est-ce que nekkul moom itam ci fin de carrière am Buur Sine ak Kéwél moom seeni mbir dafa desee tee dox ki nga xam ne nii moom moo di wulli mu mag ma itam boo bëggee dégg-dëgg daa ñàkk ca Gàmbi digganteem ak leeru jàmm ka nga xam ne nag mooy wulli de moom la mu defoon ka nga xam ne mooy ambulance bu Thiès ba tey mu ngay màggal ndam loola am na fa ay xale yoo xam ne nag mënees naa am ci ñoom yaakaar moo xam booy fisal la booy waar wala caatu xale yoo xam ne nii ku mel ni bule balan ñoom daal ñu ngay wane seen bopp waaye am na ay xale yoo xam ne moom seenu taxawaay des naa baax safal bépp wulli ak laay jokkaan yëglikaay bi ñëw na ci ñoom moo tax fàllu ngoom nag moom jàpp na ne bilan ba daal saful suukar saful xorom fàllu ngom nag moom mooy ka nga xam ne moo leen di tàggat ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay bi di sunu làmb ka nga xam ne moo di seeni Ndiaye di président CR ba ba jiite wàllum làmb ja wala boog CDC ba ca Fatick moom mu ngay xëy di wax daal nee na ñoom daal ay problème mu moyen la ñu am ngir mën a matal nag seenu mission maanaam la leen war ca seen dëkk boobee yëglikaay ba xëy tey ñëw dalal ko ci aw waxtaan ba tey bu ñu continuer dañuy dem fa nga xam ne nii rek moo di ca Leewtoo TV kan fay fekk moom mooy Omar Diagne ñu naan ko Omes Omes nag ñëw na ci diggante Tapha Tine ak Boy Niang Balla Gaye Gris ku ci nekk daal Omes wax na ci combat ba nam ko gisee la nga war a liggéey ak la nga war a moytu mu mel ni ki daal képp ku dem foofu moom da nga fa gis wax joo xam ne lu leer naññ naññ lay doon Omes moo ko wax ba tey bu nu continuer jóge Leewtoo point net wala Leewtoo TV dañuy dem fa nga xam ne moom moo di ca record moom ka mu xëy dalal tey rëg-rëg ma nga xam ne moo war a daje ak guy gi yëglikaay bi xëy na dalal ko rëg-rëg moom xëy na di tànkaafu guy gi nee na ko ak lu mën a xew avance bi nga lekk moom jàppal ne ak lu mën a xew moom jëli rek nga ci jëlee nee na ko boo jàppee ne man mënumaa xeex wala du ma mbërëm li dóor wala daal man bëre simple rek laa man yaa ngi nax sa bopp nee na ko boo xeexee ak man jàppal ne danga am defet boo xam ne nii maanaam ci àddina moom dootoo ko fàtte te bu ñu demee ci wàllum bëre moom jël bi ma lay daan bu roogee moo nar a nekk jël bi gën a rëy ci at mi mu mel ni ki rëg-rëg moom laqul guy gi fu sore teel na koo wax la mu bëgg ak la mu ko nar a def yëgle kaay xëy ñëw tey wax nu ko keneen koo xam ne nii moom la mu daan def parcelle yëgle bi ñëw na tey samp ci ab laaj moom record muy Ama Baldé ginnaaw ba mu fa daanee Baye Pël Zos ak Papa yëglikaay bi ne na est-ce que Ama Baldé quatrième personne maanaam ñeenti nit bi muy jàkkaar lool muy le roi des arènes ba ca parcelle di Modou Lo est-ce que dana continuer yoon woowa nga xam ne boog depuis mu fay dugg ba tey kum ci jàkkaarloo rek daan na la bii nag nar a nekk ñeenti limbër boo xam ne moom la a jàkkaarlool fa xam ne nii moo di ca Parcelles Assainies ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi di record xëy na nag dinu xamal ci acti l'arène daal ne ki nga xam ne moom moo di Sélémélé daal ñàkk na way juróom nga xam ne moo di ca Ngaparou loolu la ñu yëglikaay bi xëy tey xamal kon nag Sélémélé ñu koy jàll way juróom woowu di ko jàll waa Ngaparou gépp waa Ngaparu Bokk ak waa Axlu làmb yépp loo ci mën a dégg daal yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana defal ko bépp jullit bu tëdd ci suuf yàgg maar nag démb daa amoon kulandeer waaye tey macha allah am nag tam bu baax a baax a baax kon yàgg wélér wéra la wér yow moom dara warulaa laa dal doonte ndey kumba faal dina lay topp ak lu ne mu di la ko wax waaye ku la xam-xam ne góor yàlla nga ndax liberté kaat nga dëkk mënoo nekk ragal mbokk waa Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm di sant Babacar ngeen àndoon si revue de bi nu ànd ak yéen nag si jàngatu aan bi Babacar maa ngi lay di la ziar. maa ngi lay fay Ndeye Coumba Fall di la delloo ziar bu baax a baax a baax.

dina teel a liggéey mais est-ce que niveau coulandeer ya benn la yow tamit yàgg sa coulandeer moom ak coulandeeram ko xamal sa yow xamal sa ginaar yow lekkal sa ginaar te xam lu sa ginaar lekk quoi. est-ce que nekk coulandeer ñàkk xaalis ak lu ci mën a xew rek yow lekkal sa ginaar te bul xam lu sa ginaar le lekk xamoo nu fi coulandeeram nu mu demee yow géral sa bos rek yow moo gën a wóor. ak sa moromu rafet rafet na lool macha allah. ni ñëw nag si jàngu loolu moom mooy géej jàmm noonu <laughs> ñu nag si sunu laam na dafa xeex dalal ki nga xam ne mooy mbay Guewaan ni moom daal mi ngi araftu Mbaye Ndewaan Mbaye Ndewaan moom nag mi ngi araftu ki nga xam ne moom mooy Boy Niang nekk nag si staff ki nga xam ne mooy Tapha nee na benn mbër sañunta xeex ki nga xam ne mooy Tapha Tine waaw loolu da la wax waaye nag a ah, loolu waxi entraîneur am la waxi ki nga xam ne moo yore mbërëm la loolu mu wax nag defe naa itam ku ne am nga droit ko ci sa mbër kani nit sañ ta xeex ak moom waaye nag xanaa kay danaan ku xeex ak moom dina la duma mm. waaye des autres xeex ak moom moom yaakaaruma man loolu duma ca ànd parce que li tax mooy ki lekk am Tapha moom dafa pare pour xeex ak moom mbër moom ci mën a doon moo xam Boy Niang ko lekk la ak lu mën a xew bëre dóor la ñuy def te yaakaar naa ne Boy Niang du ñëw ca làmb ja lay baraam ay loxoom ne du bë xeex wala mu ne da non non xeex moom buñ ko waree def xeex kantaan nag ci biir xeex ba ku dàq xeex ak ñu toll ci position bi ku xeexam gi di gën a arrangé foofu la sew sew ba ne loolu moom defe naa bu ñu ca demee ku ci ne ci seen biir xeex am na foo xam ne bu ñu fa yeggee ci xeex parce que bu ñu dee wax boo dégloo démb omes wax na la ko bu dee booy Niang la am na ay déplacement yu gaaw. da mm-hmm. ngay dégg ci sànni loxo déplacé wu. bu dee tafaatin gis nañ ko dañ na sax du xeex xeexu kaw mais ma ànduma ci ndax xeex na ak Bombardier ak Elton ci kaw xëy na fa mu leen gën a dominer mooy ci kor mais li am solo daal mooy tafaatin moom xam naa ne booy xeex ak moom na nga jël sa dispositif yu leer a leer parce que macha allah itam nekkul ko nga xam ne nii. Euh, daa mel ni baaba quoi. daa mel wala boobu mel ni yàgg nooy boy. waaw euh, ki nga xam ne nag mooy Assane Ndiaye Assane Ndiaye nee nañu nag euh, taxawal na ki benn combat bi nga xam ne mooy may guy gi. ak ki nga xam ne mooy euh, Mamba la Babacar. dem la ko combat ba moom yàggoon naa taxaw. boo xoolee ba mu ko annoncé yàgg na parce que li tax mooy Presse Café la ko présenté woon ñaari mbër ya teew seeni manager ñu ànd ca combat ba taxaw ñu dem ba benn moment nag corona bi ñëw ñu war a euh, kii combat bi yàlla def indi ay dog-dog ci diggante bi ak ay malentendu yoo xam ne ni amoon na fi mais Assane boobu terewul moom mu ngi toog jàmm jàmm ba yàlla na mujj na ko finaliser maanaam xëy na la amoon différence ci diggante ci benn camp bi la wala yeneen ñaari camp yi réglé na ko ba lépp féete na boor mm. ñu ñaan yàlla rek corona bi jeex ba mu mën a tëgg combat ba parce que itam diggante Mbaye Gueye ak Mame Balla bokk na si combat yi nga xam ne amateurs ñu ngi koy xaar ci làmb ñu toujours nag ak bawal euh, bawal yi ndax nee nañu ek euh, euh, làmb def na tey bilan wu écurie bawal nee nañu am na 7 victoire ak 7 défaite benn nul neen daal bawal mi ngi jafandu daal bu bañ a daal. waaw bu ñu nee bawol nag day bi def si baax leeral yi maanaam dafa am bawol mbooloo moom la tafaatin nekk bawol bii nag mooy bawol bi ñoom Mbaye Diouf ne ak ñoom wulli deux ak wulli un yaa ngi dégg mooy bawol bi nga xam ne Fallou Ngom mooy entraîneur bi mu mel ni ki nag ñoom comme ni ñu ko waxee rek sept victoire sept défaite ah, yéeguñu wàccuñu saful suukar saful xorom ñu ngi digg bi yaa dégg maanaam ñu ngi jafandu mais nag loolu mooy làmb euh, xanaa gën a liggéey parce que itam ay xale nga fa yoo xam ne ni yaakaar naa suñ gënee liggéey xëy na beneen saison si kattanu suñu borom mën nañu am résultat bu nga xam ne dina gën a baax bi mhm. ñu noonu nag si premier Tigre de Fass làmb li ñu xamal ne moom daal ab AVC moo ko daaneel ba benn loxo bi ak benn tànk bi daal gauche bi dafa paralysé mënul daal toog day tëdd rek Babacar. waaw ñu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yëkkate ak jàmm Mbaye Guèye premier tigre de Fass yaakaar naa ne nag comme li ma la waxoon sànq rek àddina moom moo mel noonu nit buy dund dangay feebar luy tooy da ngay wow kon li ñu mën a def mooy ñaanal ko parce que jur la ci ñun di jur ci ñu baree bari tey ci réew mi am lu mu def si làmb marqué ci empreinte am yaakaar naa tey mbër yu bëri tey ci barkeem ci la ñu. fayekoo million ci barkeem ci la amee li ñu am tey ci lamb ba lamb teral leen kon yaakaar naa moom bay na waaram itam te ginnaawam barkeel na macha allah kon li ñu war a def mooy yaakaar naa ne euh, loolu nag bu nekkee ci ni moo la ne ko nitu dëgg la kon daal yàlla mi ko teg lii yàlla na ko tegg ci na darajaay Moustapha sallallahu alayhi amin Babacar nag suñ jógee na suñu laam nañ dem fi nga xam ne mooy record si xalima Abou Nour moom nag nag mi ngi ginnaaw nag bu waa euh, GFM bu Sénégal euh, entertainment group taxawalee combat Reug Reug ak euh, Gouye Gui te nag dafa xëy nag am waxtaan bu yaatu ak ki nga xam ni mooy Reug Reug moom daal lu mu gis daal mooy nee na Gouye Gui dina daanu lu si mënti am daal dina daanu nee na su xeexee ak moom dina daan su ko fekkee nag da koy jéem a simpi moom moom nag la ñuy simpi daan ko dina am jël bu ñaaw ñaaw si carrière waaw mu mel ni rëg-rëg moom comme dañ na rek bañ la génn wax moom mm. waaw kon que ah, a xew da ko koy da da koy def moom guy gi loolu rëg-rëg wax moo xam bëre bi la moo ah, boo ko lekkee dañ ne ku lekk avance tëdd pom yaakaar naa ne fi mu nii loolu muy def ci combat bi la bokk muy bataille bi ci wàllum communication xeex loolu lépp ci làmb ji la bokk digganteem ak guy gi nag la ma waxoon rek du yomb parce que li tax du yomb mooy ah Reug dafa nekk mbër mu nga xam ne nii tey ci làmb téye nu ñuy def ba téye ko la ñuy wax parce que li tax mooy mën na bëre macha allah am na ginnaaw te fonk na li muy def te xale la te yooyu boo ko boolee nag ndey Kumba Fall ah lamb da nga cay daal di bokk te boo xoolee ba mu duggee ci lamb tey macha allah yàlla nga ko sutural amagul defet li simple bi tamit noonu la ci mel mel ni na caa guy gi xel mook stafam ci côté bëre bi ci côté xeex bi parce que euh, mbër moom li ne ci moom te mu gis ko loolu lay wax waaye itam nañ ko wax mu bàyyi xel que ne am na adversaire ndax guy gi du ragal loolu moom booye boo nga jàpp ko te itam nekk na mbër moo xam ne nii euh, yàgg mbër yàgg na koo topp ñu dem ca bañ ca ñëwee nga jëlee ca loola naqari yooyu yëpp nañ ko sóoraale parce que guy gi tëlewul bëree parce que li tax mu wax la ko mooy guy gi convoqué nañ ko équipe nationale ma rappelé ko INSEPS bu Thiès la ko fa jëlee mooy nday kumba ñu xëy leen dekkee leen salade guy gi dem ca borom restaurant ba xupp ko jël fa ay ginaar lekk ba biiram fees. yokk poids mu peese ko poids ba ñu ne ko àcc demal ñibbi. kon ku dem ba ñu woo l'équipe nationale ça veut dire que am na bëre bu ne ci yow te bëre na mbapat boo demee Thiès ay ñu mu dant boo leen laajee dañ la koy wax kon mbër mu mën a bëre la mm. te léwul bëre te xam na ne muy aborder ay adversaire mais nag combat ma xam moom bu nganda nganda nganda yi Kumba Fall waaw bu neex ah, suñ jógee nag si euh, Reug Reug lañuy dem nag fi nga xam ne mooy Ama Baldé toujours si record si xalima Abou Nour ne ñu ginnaaw bu mu daanee euh, ñetti parcelle waa nag tey jii Ama Baldé dina lonk tamit ki nga xam ne moom mooy Modou Lo. waaw foofu de la laaj ba ne loolu Abou Ndour laaj daal moo di laaj parce que daan na bàyyi pël mu Modou Lo ba mu koy daan Modou ko indi daan na ki nga xam ne nii moom moo di Zos ba tey. di magi Modou Lo bu ñu bokk parcelle tegaat ci beneen magi Modou Lo di Papa Sow ba tey ñu bokk parcelle kon nag quatrième position bi wala quatrième personne ñeenteel nit bi mooy Modou muy le roi des ndax dina ko lonk wala du ko lonk dañuy ñaan yàlla yàlla yàlla nañu waaw nañ yónni yàgg ñaan yàlla fekke bés ba te tal ko waaye xam naa daal boobu itam combat bu méttee méttee nga na bu bu nar a doqate dang mhm. waaw euh, Babacar nag suñu jógee nag record nañu dem fi nga xam ne moom mooy Leewtoo TV foofu nañ fa dalal ki nga xam ne mooy Omez Omez nag Babacar laaj na ko nag si affiche yu mag yi nga xam ni moom lañ jëm saison prochaine bi ki si mel ni comme Balla Gaye Gris Tapha booy Boy Niang Eumeu Sène euh, ak ki nga xam ne mooy Bombardier Babacar waaw boo boo bëggee dëgg-dëgg daal Omez la mu wax ca Leewtoo TV moom ku ko ubbi da nga xam ne kii li muy wax daa mel ni xam na ko parce que itam ah, tey encadré na ay mbër defe naa bi muy encadré Tapha Tine wax na ko encadré na ko lu war a cinq combats mhm. benn bi la ñàkk kon yaakaar naa am na lu mu xam nekk na ah, ah, staff euh, itam nekk nit bi nga xam ne daal waxtaan woon nag neex na trop macha mu nga ca Leewtoo TV kon day Kumba daal képp ku bëgg gis loolu omes wax ci diggante Tapha Tine Boy Niang Balla ak ki nga xam ne moo di Gris Bordeaux boo demee foofu moom di ko fa gis incha zos zos day mu ngi ci réew mi. relation waaw nee na moom ci wàllum relation international lay nekk léegi loolu itam dañ ko ci ñaanal yàlla rek mu am ci ndam parce que zos moom ah, moom jàpp na ne ngem bu bëree moom dafa wokkatul ci affaire am. ay njug ak ngem. waaw njug ak ma ci jaaxal nag zos njug ak bu neex na ne suñu cosaan la ñu koy nuyu di ko ziar. <laughs> ngom ji rek a ko yàq. ah ngom bi waaw la sax ngomee ni moom mooy ah, loolu quoi samay kàddu dañu ah. bëgg lekk. ku la raw dee ngomeen yëpp yow lekk rek ngay def Babacar yow yow ku la raw ku mu nag si kàddu yooyu leneen tàggoo lekk lekk lekk ba indi dina jox waaw <laughs> ah, kon nag si kàddu yoon leen tàggoon leen jox di daje suba incha allah mais balaa boobu muy nuyu sama yaay mère soo nuyu sama doom Mouhamed Diouf di nuyu Astane chéri Khadija Diallo dèjà Brahma euh, jot na sa yóbbal nee na amul benn problème nee na lu la yóbbante ay blouson comme que loolu mooy yëre góor man daal yëre góor laa soxla di nuyu nag ki nga xam ne mooy Asek chéri euh, Khoudia Seck depuis Italie maa ngi koy di nuyu sama euh, xarit sama sama sama lépp daal muy Abdou Gueye depuis États-Unis Baye papa yi Siteu Babacar nag tey nag mère Sow moom may ay dédicace nag nee nag waa Mauritanie la may dédicace nee na mi ngi may Soukayna Dieng ki nga xam ne mooy doomam mi ngi koy nuyu depuis euh, Mauritanie di nuyu aussi sama cousine kooku moom sama doom bàjjan la sama cousine ni koy ni koy euh, woowee Jumbóori Mbóoj ñoom ñëpp su Mauritanie Babacar tey nag mère Sow moom may dédicace kon boo foofu la ñuy jaar rek départ nuyu waa Mauritanie man tamit <laughs> ah, nuyu ñooñu mère Sow nuyu waaye di suma soppe ba suma xarit sama jigéen soxna Asi jaañ bu xarañ loo bu KMB maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm di nuyu waa Mauritanie yëpp waa Mali itam du leen fàtte waa Côte d'Ivoire ku mel ni Seydou mu nga Côte d'Ivoire bu Sa Thiès maa ngi koy nuyu waa noo Seydou noonu yàgg nañu ko ñun ah. dañu yàgg du ñu bees de man koo ku muy tudd rek yàlla boole nañ lu yàgg am na ñoom tamit yàlla dafa ñuy boole tey parce que àddina démb fi ah, am tey ak suba yàlla na lépp di rafet rek nuyu nañ képp nga xam ne yaa ngi ñuy bégee xam nga di nuyu ndongo Fall ca Italie yaa ngi dégg ñoom Mbacke Kébé mais du ma fàtte tamit waa Petersen xam nga ñoom ah, euh, waaw non foofu sama marché la ah, Petersen moom sama marché maa ngi nuyu Petersen bi yëpp rawatina ki xam ne mooy jib seen di suma rakk sama xarit di booy ak ki nga xam ne nii moom mooy Cheikh Lambaye ak ñoom Mor Diouf Babacar bu Mod Lama ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu kull kuy jaaykat rek nekk Petersen wala ngay ouvrier waaw di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom. sa cameraman moom anamu. <laughs> yàgg dëggoon na ci biir nee nga tey maron laa sol mais man saa yu ma solee lu ma sol nga rejoindre ma man eh, de maron nga jiital teg ci maron sa caq maron. bu soobee incha <laughs>